cosaan dañ ci war a dellu war a xamaat li nga xamante ni moom mooy suñu aada ak suñu cosaan comme mbay ni mu koy defee saa su ak ñun fii ci biir plateau bi suñu émission bi passé yaakaar naa ni première émission bi waxoon nañ ci li nga xamante ne moom moo ci wàllu astuce et beauté dugg nañ ci wàllum parfum cuuraay laal nañ lu nekk mais euh, chaque jour bëgg naa hmm, chaque jour yi incha allahu rabbi ma daal di jël benn point ñu daal di koy yaatal waxtaan ci bu baax a baax tey nag ma doon waxtaane li nga xamante ne moom mooy njëriñ li am ci gowe yaakaar naa ne jeeg ju bari joo xamante ne tey ñu ngi toog di seetaan yàkkamti nañ waxtaan boobu. Mhm. ndax goowe dafa bari te wuti. dëgg la ndax am na goowe boo xamante ne goowe saaf la. Mhm. am na goowe bu wow bi am na bu tooy bi te bu ci nekk ak njariñam. goowe Mali bi aussi am na ak goowe waalo bi. ak goowe waalo bi. bu ci nekk am na loo xamante ne nii tey moom lay jariñ ci biir néeg mhm. tey bu fekkee ni am ñoo xamante ne tey dañuy def grand ménage. defaraat loqati defar dañuy soxla li nga xamante ne moom moo di goowe boobu ndax déjà dafay am xet boo xam ne da koy dàq sa nekk. dina dindi xet dina dindi ay li nga xamante ne mooy wàllum yu. insecte humidité bi kii nu ñu koy wax kay nu mu tudd. insectes yi kii insectes yi day dindi li nga xamante mooy insectes yi tamit daf leen di dàq. day dindi tamit li nga xamante ne mooy guus comme ni nga ko waxee tout à l'heure tey gowee tamit soxla nañ ko ci fi nga xamante ne moom moo di ay salle de bain déjà am na jigéen ñoo xamante ne tey boo duggee seen néeg mérité wuñu salle de bain en fait <laughs> soo duggee rek da ngay xamante ne day am benn xet boo xamante ne daf koy dégager boo xamante ne da lay leer ni ñuy farataalul li nga xam te ne célibataire bi ngay waxal wala marié ñoom ñëpp célibataire bi nga leeral parce que célibataire yi dañoo wow bët ah, célibataire yi dañoo wow bët surtout góor yi tam at nañoo dem di jënd sooy di ko di ko taal ah lu mu koy dee Aïcha Khadija farataalu li nga xamante ne moom moo di wàllu gowe te gowe dafa baax ci li nga xamante ne moom moo di ci néeg baax li nga xam te ne moom moo di ci yére mhm. parfois da ciy baax tamit nga daal di boyal sa ànd tuuti ubbi li nga xamante ne moom moo di sa armoire teg ànd bi mu dugg wala nga koy nga koy suuroo tamit di ko def tamit di nga xamante ne moom moo di sa suuf la di ko suuroo suur boobu sa jëkkër buy dem juma sax parfois wala mu dem xadaratul juma nga daal di jël yërëm xale yi ma xale yi suur suñu seen jëkkër yi bu bu njëkk bu la bu la bu la jigéen ma romb mairie <laughs> bu bu wogande seen i grand bu bu xetu goowe digg ji yooyu ku mel ne sama yaay jooju ma saw moom bu la rombee hmm? da ngay xamante ne kii war fa kàlla macha allah est-ce que temps boobu xale yi jigéen ñi amati nañ ko parce que tey instant bi nii pour ñu boyal sax c'est tout un euh, nañoo ñëw di boyal parce que fer ànd électrique yi ànd électrique yi la ñuy est-ce que xam nga ni awa li gën a li gën a graaw mooy est-ce que xam nga ni kudd kudd bu tàng nga teg ko ci ànd day tàngal xolu jeeg dañu ci bari xamuñu loolu xamuñu ko kudd dañ koy jël def ci gowe teg ko ci ci ci xali loolu day tàngal xolu jeeg baaxul. Mhm. j'aurais préféré nga wut papier allume wala nga jël ku kubéeru Nescafé. nga teg ci ñu ci bëri tamit ñu bàyyi ci xel parce que xalaat tamit du doy. xel du doy wala doomu taal bi sax taal bi teg ko ci parce que ñoom bu ñu bu kudd bi teg ko ci rek. waaw bu ñu jëlul kudd bi teg ko ci rek pour ñoom du ñu am lu leen neex. Hmm. juste pour bu rappeler que ni boo xamante ne ni da ngay cuuraay wala da def gooy da ngay jël li nga xamante ne moom moo di kubéeru Nescafé yi wala nga wut papier alum daal di koy teg ci li nga xamante ne moom moo di xal bi muy xeeñ dànk ñu ci bëri ñoo xamante ne tam duñu utiliser gooy saxaar bi wala soit dañuy am ci kër yoo xam ne dañuy suniser soo waxee ñu ne ñu utiliser mais dafa façon boo xamante ne moom nga koy utiliser mhm. nekkul ni da ngay ñëw rek jël gooyal bi rek sànni ko ci biir xal yi rek daal di dem déjà xet bi nga am sax bi nga bëgg doo ko am mhm. parce que euh, saxaar si day bëri ba yow xet bi nga bëgg à cent pour cent xetu lakk ngay am mm. bu fekkee tamit am nga jëkkër joo xam te ne tey dafa allergie cuuraay wala saxaar wala dara pour ñoom asthmatique yeeg ñi nga xam te tey dañoo sinusite j'aurais préféré nga daal di jël sa papier allume teg sa gowe tëj sa nekk dem. balaa muy ñëw ay 30 minutes muy xëy ndànk. déjà mën nga cuuraay ba pare kenn xam xet bi fan lay jógee. ko révolutionné am ay parfum de chambre yoo xamante ni goowe lañ ko defee te dafay neex. day neex ba pare day des. Mhm. ba pare goowe dafa nekk loo xamante ne tey jigéen ñi bu ñu daan pare li nga xamante ne moom moo di gis seen règle. wala ñu am doom après accouchement. Mhm. dañ leen di wax ni ñu jël goowe di ko naan parce que day raxas seen biir ci lu bari. aussi di nga am fontaine yoo xam ne wala nga jël même bu fekkoon da jël sa suyoo naanukaay nga jël benn wala ñaari gawé tëmbal ko ci sa ceeb def sa ceeb di naan day dindi lu bari li nga xamante ne moom moo di sa biir day dindi mm. infection perte blanche yeeg yëpp daf koy dindi utilité gawé bari na njëriñ boo xamante ne peut-être ñu bari euh, mm. j'avais pas le temps mais dama naroon a dem fi nga ne moom moo di marché HLM mm-hmm. daal def quelques reportages mais après xam naa au fur et à mesure incha allah dinañ am temps loo xamante ne dinañ gën a fësal li nga xamante ne moom moo di wàllum gawé ñu daal koy farataal di ko def tamit ci li nga xam ne moom moo di euh, suufu lal yi muy mm. jàpp matelas yi waxuñu nga ñëw rek mel ne benn aaw fee jël ko dugal ko suuf lal mu jàpp sa wala benn ñaareel wala benn ñaareel <laughs> mën nga teg sa matelas ba mu kawe nga daal di wéer jël sa ànd def sa suufu kii def sànni sa benn gooy wala ñaari gooy mu jàpp hmm. muy jàppale tamit rideau yi am nag néeg yoo xam te ne boo fa duggee xetu gooy bi day dem ba tàmm néeg ba boo cuuraayu sax da hmm. dugg si daan ne hmm. lan moo fi xeeñ sa parce que day dem ba gooy day des day des ci mur soo tàmmee gawee dëgg day dem ba day des ci sa muru néeg day dem ba jàpp say rido day dem ba jàpp say fauteuil nit ku toog même boo deful gawee day xeeñ waaye gowe tamit am na am na saaf uh-huh. man moom euh, boobu moom ma si gën a gën a gën a gën a neex mooy gowe saaf bi uh-huh. mais euh, également euh, comme ni nga waxee man gowe gowe bu simple bi si si uh-huh. togg wala si lekk laa ko gën a gën a bëgg genre mën nga jël gowe gowe bu bëri nga xooj ko si ndox defaale si ceeb Mm-hmm. beneen goût lay jox euh, ndox mi ba pare en même temps day raxasaale sa biir mm-hmm. euh, par exemple booy togg ay ruy yooyu noonu bu la mm-hmm. neexee nga tànk si ay sombeeg yooyu bu la neexee nga nga sànniwaale ko si biir maintenant euh, li tax nit ñi il faut savoir que du goowe bu nekk la ñuy naan c'est ça am na ñu naan xëy na goowe Mali bi je pense moom la ñuy naan mais nekkul goowee beneen bi parce que beneen bi non dafa am dafa am comme ni nga ko waxee léegi am na goowe waalo am na goowe Mali bi am na goowe saaf am na gooy bi nga xam ne tam moom la ñuy xooj xam nga mënoo jël mhm. gooy boo xam ne c'est parfumé tey def nañ ci parfum yëpp pour nekk nga jël ko nga ne da nga koy naan mhm. mais gooy simple bi nga xam ne dara rax ko amul te li tax ñu bëri bëgguñu saxaar bi mooy saxaar en général dafay day day changer couleur peinture mhm. day changé couleur xamuñu pare day tilimal néeg day tilimal néeg ba pare xet bi bu baree dootul dootoo am odeur bi nga soxla a 100 pour cent ci li nga xam ne indil ay problème ci sa santé lakk ngay am mhm. xale jigéen tamit ñu bàyyi ci xel bu baax tey tamit di suur seen jàllaabe borom kër la ma góor ko waxoon rek lépp démb gàcceel na loolu tey uh-huh. xam nga suuru bu njëkk dafa bokkoon ci li nga xamante ni euh, mag ñi dañ ko farataaloon. Mhm. te suuru dafa bari sax njariñ li ci nekk ak yi ci nekk. Mhm. kenn mënu ko xiyaas. Mhm. am na yeneen i xeeti cuuraay yoo xamante sax. mag ñi daanañ ko suuree seen yëre daanañ ko suuree seen yaram. waaye su dee ci wàllu gooyo bi ak digije. daanañ jël gooyo ak digije. Euh, daa ko daa ko daa ko suuree seen i ndax goowe dafa am xet xet gu neex goo xam ne. c'est vrai mhm. dafay dafay des. Mhm. dafay des day des ci béréb bi nga ko def waaye day des tamit ci yëre. Mhm. soo soo soo mosaan di waaj di dem fenn. jigéen ñi am na ci ñoo xam ne xalaatul woon seen jëkkër di génn di dem. te duñu suur ay yëreem ba noppi. bët bu set. seen jëkkër balaa dem xam nañ yëre bi mu war a sol ñoo ko koy génneel suur ko jot boobu amatuñ ko daawuñu seen seen yëre jëkkër daawuñu ko yóbbu nettoyage mhm. mën na noo yóbbu sax yëre xale yi wala kii di ko fóot ak côté boobu sa maam nee na sa barke si sa sëy bokk na ci ngay fóot sa yëre jëkkër waaw ndax ndax gis nga <laughs> gis nga boo boo boo boo fóotee sa say yëre jëkkër soo koy fóot mhm. noonu tilim bi di dañee ci yëre yi noonu la yàlla di dindee lépp lu nekk ci say bàkkaar yow it yow mi ko jigéen mhm. ngënal yi nekk ci fóot si sa yére jëkkër kenn xamul nu mu toll mhm. yamu ci fóot kese togg beeg toppatoo beeg yooyu si la bokk ah. benn bu ci nekk waaw benn bu ci nekk la muy dox rek mhm. Euh, su ko su ko jigéen xamoon maanaam day sonn ci jëkkëram tellement que dëgg la mardi tali macha allah donc am na am na solo lool vraiment moo tax suur yooyu noonu. loolu am solo loolu dañ ko jigéen dañ ko farataal. te suur yooyu mbay dañ ciy dañ ciy def yu doy waa dañ koy nëbal boole ko ay xeetu ah. parfum. ah, ah, ah. bu ma la jëlaloon alice bi ak sutura bi jaxase ko gooy bi fàtte ko. ba quelques jours yi lu doy waa day am en tout cas amoon na solo je pense que. Euh, kontaan naa bu baax di di remercier ki nga xamante ne moom moo ci euh, Ibou bu Aremère Thiaba ndax da ngaa waxati waxtaane léegi Serigne Babacar Babacar sama xel dem ci moom mooy borom Al Amine Couture nekk foofu ci Kër Massar terminus 56 ma koy remercier bu baax a baax di remercier vraiment ma kontaan <laughs> May nga sama coach boobu nga xam te ne chaque jour dama koy wax borom Malika mm. doomu euh, mère Dieye sama yaay aussi liñ naan xeer ba ca da cay daru moo jàppale euh, li ñaaxariñ loolu di wax toujours da naan travail de maman nourriture de l'enfant <laughs> moom moo jàppale bu ma yegg fii chaque jour gisee naan ma tu peux de l'avant ma koy remercier may ma de bintaan njaak njaak am na njaak ma de am na njaak ma ngay remercier bu baax sama yaay jooju juma sow aussi di leen remercier yéen ñi ma bokkal plateau bi franchement chaque jour ngeen indi thème yoo xam ne dafa am importance bu baax ñu ciy tirer ay leçons di remercier képp koo xam te ne ñu ngi seetaan à travers la Walf TV